تلكو لبكو كيرن تبي صلى الله عليه في الأندى كين كوديب جلس منو باي يون ويني ورا جار بمانة كيان سنجوا كيسو كمو بكي جنا بنو سنتة سن برام سبحانه وتعالى جل تشين انتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي بالحق نيب تيبالو حق نيب yàlla na nu yàlla boole jëggal tomb bi ñuy fàttalante gannaaw bu ñu dénkee suñu bopp ragal yàlla ci ko dénk ak a laabiire képp ku nangu ñu xam ne subhanahu wa taala mi ñu ko séqal ku waxagul sax dégg na ko waxuma laa ko wax dégguk xam sakkantuma mu wax waaye lu way nëbbu it daa leer fi moom nañ te la muy nëbb la ca yàlla di xam kay nëbb xamu ko ca ndax yàlla xam na la muy nëbbu fu muy mujj te moom day nëbbu noonu rek ngir nëbbu di ko nëbbu diw ak moo tax ku ko xame noonu war na jëkkante lu man ci pas-pas bu rafet bu wir day wir ba nopi mu diko bu ak diko ko ba dara du ko laal ludul pas-pas bu sel wicc tay jikante nak jëm ci dig ba nga xamne lu ko way daw daw mënoo ko raw waye lu waay yeexamtal yeexamtal bi du yakamti mukk ndax xam na ne la Quran waxon suñu borom waxon ko ci alquran du daj du dañ mukk kuñ ne bu defé nangam ak nangam ak nangam du gawo a faatu lum ko jaral daf koy dum ko luñ ko ci wax rek daf koy jaral waye neena faatu mo mu jërut daw ndax fa ngay daw di jëm ma ngay ci ak yow yalla ne nak motax ku koy bal xel du fas yéene fas lu dul yàlla kenn la waaye du fas yéene jëfe lu dul ndigal suñu borom xol bi nga xam ne nag mooy fas ni cër yi di wéradee nit di ko faji noonu la xol di wéradee xol bu wéradi nag mooy yor ci ay jikko yoo xam ne am na ca yooyu silence killab la sut maanaam kuy rey koo xam ne kii day rey ndànk ndànk ndànk ba ba waajee jekkaliku na këram yal nañ ci Yàlla musal am na ca yooyee wéradi gu ñuy wax rambaaj rambaaj yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci loo xam ne kum ne ci moom na seetaat boppam ana luy mooy koo xam ne day fekke jataay bu ñuy waxtaanee ba tudd diw ñu seereel ko seere su rafet waaye su koy nettali diw day wëlbati wax ja ba mboolem ña neewoon ca jataay ba ñu doon waxee wax ja ñëpp dañuy yàqoonte ak diw moomee ndax fu mu tase ñoom di leen ko xoole ne kii moom doon wax nangam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñi ñi yées ci jaamu yàlla ñi ci yées ñoo ñaa ña leen yées mooy ñi nga xam ne ci ràmbaaj la ñuy dox dox ci ràmbaaj nag mu mel dañ ko laaj mooy lan mu ne kuy tàggale ay soppe ñu bëggante woon ba ba mel ni kenn mënta ñàkk sa moroom mu fexe fexe ba ku jëkk gis sa moroom sa moroom du la gis lu yaatu suñ jamono la amul kenn ko xamne aw nit dana tok fa mom di wax lu bax kasse kasse kasse kasse rawati nak la fa nek xawa xumbu tuti ci ay nit kenn ku ci nek day set lam bëgg a dégg ndax nit ku ci dama bay bëgg a dégg lu dul bëggut dégg lu sa waji rek ko gis suñu tonu ñeena ko de sa waji da yaakaar naa ba nga jëfante moom léegi mi ngi gën a sonn yal nañu ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb na bammel bo xamne da dem dem munta dem mu ne teg taxaw ñaanal borom bàmmeel ba lu yàgg ñu ne ko ndax sañ nañoo xam taxawaay bi mu ne dafa romb ci armée yi jëmm joj mbugal mam nekke mel ni mbugal féetewu ko kaw lekk ko teg aw làmmiñam ndax daf doon dox ci ràmbaaj gannaaw ràmbaaj nag mooy tuxal ay wax yóbbu ko sottandiku ko sottandikuwaat ko pentiir ko raaxaat ko ba kenn du ko mën a xool kum na ci moom ab xolam wéra dina jagut mi ngi bokk nag ci bakkaar yi gën a mag ndax li ko waral mooy day wuñ wuññi day ëñ luñ doon nëbb buñ ko nëbbutit dana feñal lo xal mo na baña feñ bu faw ndax léeg-léeg waxtan leuf recc nit kako wax jubluwu ca dara day bañ ko melni mom ci ca jëfam mu àgge ko ko mom koku nak bokk yi léegi tay sa bu ñëwatee ñëpp ne pat dang ko gis ci ay jotaay ko xam bu ñëwee nit ñi na ci yàlla day ëñ lu kenn wutoon a gis day tuxal cofeel gu amoon diggante nit ak mbokkum jullitam day samp ak noonoo ci diggante jullit yi day tàggale mbooloo ndax daf leen di faagaagal benn par benn ba mbooloo mën tësër waaye it day sakku yoonu ku waroon a dem ku war dem munta and munta nak and ak diw ak diw ak diw munta nak wax ak diw ak diw nga ne ko diw ak diw mom duma yak ak bokk de waye suma ma yow dootuma wax ak ñoom ndax deg na mu wax nanga mak nanga am nañ yalla defaron nak ku wax ci ñoom seen kanam ba tuddu diw dañuy woy diw mu ñew tok mu ne ko waxal la nga waxon ci diw mi am na ñoo amuñu katan goga waye ku wax ci diw lo wurta wax mu ne dang ko xamagut waye jikom du lool waaye jafe na ci jamono lool kuy weddil kenn ab safaan duma bett ci moom rek ngay wax ndax daal di fàttaliku loo xam ne dañuy wax ne nit ku ñuul day àtte nit ca la ay maamam doon def te yoonam nekku ci woon booba ñëwagutoon xanaa tay la waaye bëkkaati démb wala daawaati jéeg wala at yële weesu lii ak laa xanaa kay bu xasee ba tuub ba doon ko baax léegi di def lu baax xanaa war na ko mën a wax lu baax rambaaj mooy tax dañu koy àtte ca la ay maamam doon def yonent bi sallallahu alayhi ne ab rambaaj du dem aljanna yàlla ñu ca lu musal mu am ñaari xeet nam maam ak xattaat nam maam mooy ki ma tudd léegi day fekke waxtaan woo xam ne ña tax la tax ña doon wax noppiwuñ ci kanamam war naa mën a fekke war naa mën a fekke ndax la ko ca boole daa bari du fekk rek moo ko ca boole waaye daa war a bokk waaye buy génn nag waxuma ne ku ñu fa tudd aw turam ku ñu fa tudd aw it mën naa sos dolli ca ndax daa làmboo jëw ak sos mooy na ma koo xam ne moom day jël fii waxtaan fekke na ko ndax war naa fekke mu dem wëlbati ko waxe ko neneen ba ñooñu dutuñ joxante loxo waaye xëttaat nak moy go xamne mom moom boole wuñ ko ci day fortu kep ku wax mu dékk lam nop ta do xamne mi ngi lay dékk nop waye fu mu jaar mom itam mu yak amna kenn ci ñiy firi alquran di wax ak deggam ci alquran nee bo jange tabbat yadaa abii lahabin ba aksi ci wamraatahu وامرأته حمالة الحطب نينا حمالة الحطب رمك لا تشيني برام جبل فوف مين أقول لك من لطخ نيو تدي غرام مات مات رمك مات لطخ نيو تدي غرام مات nit ñi dañ lim li ñi tok jox kay dem wutiko waye lu neew lañ ci bolé mat wala kërëñ dañ ko jëlale té boko amu dotok la tax ñu tudde ko lu tax ñu tudde rambaaj matt nag balaa kenn ñoral dafa taal te rambaaj day taal ab xare day taal ak noonoo ci diggante bu rattaxoon yàlla nañu ci yàlla musal moo tax sëriñ bi bi mu koy jàngale dana rambaaj mooy tuxal ay wax ci kii walla ci ñii waaye su koy nettaliwaat day wëlbati wax ja bu wax ja jëmoon penku da koy wëlbati mu jëm sow te lam ci jublu du dara lu may yàq rek yàq ku ko tàmm ba tàmm ko léeg-léeg mu yàq diggante boo xam ne dara nekkalu ko ci da caa laaj dal ne moo gën a bon fuuf jëw moo gën a bon jëw ndax rambaaj dar lam bi ci biiram jëw da nan diw diw diw diw rek waye man man na wax lam wax wala ñu wax ci mom la ne ci mom waye ki mom day beuti wax ci ba kenn du ko bëgg gisati ak beut dal li tax mu gëna bon jëw day sabab ak nono ak bañante digënte nit ñi te yoyu euh dekk bam ne ku ca ku jaar yoon ba ci jëm bu ëllëgé du munta tax munta dem aljanna mooy li yonent bi laa yadxulul jannata nammaam wala xatto daan ne nag tooke la joo xam ne day rey nit ki ndànk-ndànk mu di ko dugg di yàq la muy yàq di yàq la muy yàq ba nit ki xëy na kasan moom la docteur yi wax ci yenn wér yi di naan silence killer daan ne ku ci bëgg a mucc nag yonent bi jàngale na juróom benn yëf bu jëkk ba mooy kii ñëw di la nettali lu la diw wax nga bañ koo gëm benn ñaareel ba nga bañ a jortu ne mbaadu kon diw lii waa ji wax dëgg la bañ caa wéy njort bañ koo gëm te bañ caa jortu dara ñetteel ba mooy bañ a mu bañ laa jaral jóg di ko gëstu ji wala di ko seetlu ba xam loolu dëgg la wala du dëgg ba ca dolli ko muy ñeenteel ba mooy nga tere ko ko ne ko bàyyil wax ci nit ñi lu dul noona bako juromel moy nga wan ko ne ko beugatuma la gis sa bu ñewé nga jog dem wala sa boo ko seeni mu ñëw nga tëj sa bunt wala bo bo de ko ku ko dan jara jariñ dara bam tax mu bëgg lu lay neex kese nga bañ koo jariñati dara tax serigne bi ne euh, وهي لدى الأشياخ سم تقتل ترياقها الإعراض عنها فاعقلوا أه، لكو يلوغ موي كونم كوم نيوان تي موم مو بايكو ناخ أن نيپ ديفاي نون امو تكوم واخال ليك تاي مو نوبي واي نيت نيت لي لين مو دوغ تي دام باتي دوكو ييك بوكو نيو دي لا نيت لو خامنا دو نونا buñ ne lool de moom duma bett ci nit ñi daal di maasali ñëpp far moo tax Seydina Muusa alayhi salaam ba ko yàlla ne ñu ànd ak yow dañu si bari ay naafiq lañ mu ne ko wan ma seeni tur ma yàlla ne ko mbaa du ma doon a mbaaj kon da ko ëpp ci ñu ànd ak yow ay rambaaj mu ne ko wan ma ne ma doon war a mbaaj kon bind la ci ne buñ ñëwee dale ko seereel bul nangu boo ko xamee it noppi waaye lam ko ca jàngal mooy fexeel ba bañ a doon ràmbaaj te bul ko may bunt bu muy ràmbaaje sa diggante kenn waaye nag fekke koo xam ne lam doon def nëbbu ko mu ngi ci mbedd bi kuy woote woote ne ku ko fekkee woon nga dem ne fekkee naa ko loolu bëggut ak ràmbaaj ndax ba mu koy def di yow dong yaa fa ne woon woo nañ la woo sa moroom waxal la nga ca xam te ca waaye loo xam ne waa ji da koy nëbb geesu na geesu defe ne kenn gisu ko mu denc ko fi barab saa boo nekk leer rek da ngaa rambaaje yanoon ci yàlla musal kon nit ki ak dundam ci pas-pasam war naa fexe ba buy nettali te nettali bu bari léegi tey mu am asaka mag ñi neen wax ju bari léegi tey asaka génn ca bu nett li munta ñàkk na doon lu amal jullit yi njariñ loo xam ne ku ko def jariñu wala mu doon loo xam ne ku ko moytu mucc rekk te fas yéene fu mu dégg ku siiw ci neb rambaaj la mu bañ koo mayete kanam gu leer gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey saa buñ la yëkkatee ci sa kaname nawle ràmbaaje nañ la ak ñi ca des yàq nañ si diggante ñoom ndax buñ la wane la yow yaa gën ñi ci des yaa leen man yaa leen nangam yaa leen nangam yaa leen nangam nga gis sa bopp dootoo leen nawloo seen diggante ñoom tàmbali naa jax naqari te bu yàggee soo ko dee déglu bu ñëwee net bu la nettalee nga jël ci diw kon bokk bokk yi nañ xam ne kenn ku ne ñam xamoon ñu si jóge bari nañ te kat li gën a tiitlu fi mu ne ndaw ñi ñoo ëpp ñuy dem dem goo xam ne duruf raamida la fii la taxawoon barki démb gis naa ko ci suba romb na ma ci ngoon am na ci yoo xam ne jàngoro juy rey nit la ndànk ndànk ba ba muy jeex kon nañ fexe setal pas-pas yi suñu digganteeg suñu borom te fessel ko suñu digënté ak suñu moroomi jaam moy baña rambaaj baña a ab rambaaj baña gëm lam lay wax bañ ko jema xam ba xam deug la wala du deug rafet ndortu ci ñepp kenn ku ci nekk nga def la nga war def sa digënté ak mom ta bàyyee ko bopam yalla na defal deug ak top te musal ñu ki pakam ya yaxfirullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin lu bokku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla ande kenn ku dib julit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war jaar ba man nga gañe Sëñ touba gisaguma ko seetloo